dañoo dëkk ci dëkk bi bokk ci yoon wi di ab murit ñu mbokkoon ci ñu màng fekk ci sëriñ Touba yàlla dogal yàlla dogal ñu dégg benn waay ci rajo yeeg télé yi mu ni moom murit la bay wut ñu nekk murit ak ñu dul nekk murit waajooju ñuy wax ma dikke ñaa mooy suñu daja tey ndax dafa wax ni président Macky sàll dafa war sëriñ Touba muy kàddu gu ñaaw benn ñaareel ba mu wax ni Ila Touba bii ñu doon def mu saboote ko lool ñàkkal ko fayda ñetteel ba mu ni région Diourbel diggante Njaareem ak Touba ak Mbàkke Macky sàll def fit dara li ci gën a ñeenteel bi nag mooy dañuy boole ndekete day jéem a boree tarixa yi parce que bu nee daa dem Tiwaawan naan autoroute bi fee la jëm te ak Touba lenn rekk la ndax alaaji Maalik ak sëñ Touba ñoo bokk maam maaram mm-hmm. ne woote jëme ci yàlla te ñoom déggoo nañu loolu nag ba mu pexe nag moom du jub bi ci des Ila Touba bii muy wax nag sëñ Cheikh Sidi Mokhtar moo tegoon xeer bu jëkk bi ci ndigalam ci ndigalu sëriñ bi la ko tege woon biñ koy ubbi di ko intégré sëñ Muntaxa Mbàkke xalif général de murit moo ñëw ubbi ko ànd ak njabootuk sëriñ Touba gépp bégge ko teeruloo ko nit ñëpp murit yëpp teeru ko mu sant ko gërëm ko ñu ñaanal ko kon bu wàññeekoo ni defu fi dara di saboté autoroute bi daa mel ni war naa xoolaat bu baax boppam moom ma dikke ñaa moom nga xam ne dikkul demul ma dikke ñaa dafa amul important sax bu toll noonu ci dëkk bi ndax fukki atak ñaar la fi def moo mook Ablaye Wade ci gouvernement bi poste bu nekk Ablaye Wade jox na ko fi defu fi dara Madické Niang nee na avocat la bu bu musta gañe gañe projet kenn déggul projet bu ma Madické gañe diplôme bi sax nee nañu Côte d'Ivoire la ko amee da koo lijjanti Madické bu ñëwee ci dëkk bi di wax lu sëriñ bi gërëm sant ko taalibe yi gërëm sant ko mbàkke mbàkke yi nga xam ni seen maama moom dëkk bi ñépp sant gërëm képp ku jaar ci autoroute bi dem Touba dem ñëw dangaa sant gërëm bi ci des sax turu bi autoroute bi tudd Ila Touba bi rek daa tax ku di murit te nga ni murit gi dëgg la ci yow waroo koo jéem a sikkal mbaa ngi ciy wax njabootuk sëriñ Touba gépp gërëm ku sëriñ bi sant njabootuk sëriñ Touba gi yëpp sant ko ku sëriñ bi teral njabootuk sëriñ Touba gi yëpp teral ko ñu bëggee lii mu ñu defal nga taxaw doon sàmba njorondaay taxaw naan baaxul nangamul nangamul te ma dikkee du dara moom Macky sàll mi muy wax ak ko gën a nekk murit Macky sàll ci jamonoy sëriñ Saliou Mbacké sëriñ bi daana wax naan sàllaaw saa yi ñu waxee waxi ndox rek sama xel dem ci Macky sàll ndax ndax bi mu yoree lii de hydraulique ak léegi de ndox ñàkkatul ci dëkk bi sant ko gërëm ko Macky sàll di ko ñu yar di ko yaru di ko baax du tontonte du téesante du xastante te Macky Sall kat këful réew mi ci ceeliwu ko daa laaj réew mi ci laaj bu leer laaj ko nit ñi jox ko baatu réew mi 65 pour cent la gagné Ablaye wàdd fii yor réew mi di doxal di góorgóorlu bi mu fi toogeek léegi fàttewul moom Touba ndax président Senghor ba tey ñun ñoo ngi fi ku ci nekk de am na xam naa lu mu fi def waaye li fi Macky sàll def kenn defu ko fi Touba gii daal ak Mbakke fii la sëriñ Touba feeñe Touba gii la wootee fi la ko ñëpp wuysee ñun ñëpp ñu màng bàyyi suñu ko dëkki maam yi diw tuubaa kon ku fi wax na nga wax lu ami tegginte te yaru ma dikke ñaana yaru su waxatee nag am naa leneen lu ma denc lu ma xam lu baree baree bari dinaa wax lépp na tëj gémmiñam te noppi